asalaamualeykum ñi ngi fas yéene di feddali suñu cofeel ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa te di leen ndokkeel ci weeru rabiya awwal bi ñu dugga te di ñaan yàlla azza wa jalla ñu teewe ko ay at yu bari ñi ngi feddali itam suñu cofeel ci suñuy wasila seydi cheikh ahmed tijaani ashariful fatimi seydi haj malik si sëriñ babacar si ak sëriñ cheikh ahmed tidiane si te di ñaan yàlla azza wa yokk seen leer gënaluñu sax ñu génna di wax ak njabootu sëriñ Cheikh yi wante jamono moo tollu ci foo xam ne suñu àdduwul li muy yàq mooy ëpp li muy defar xam nañu ne sax ni abdu génnoon na wax ci suñu tur ñun ñépp wante suñu àdduwul soo dina réeral dëgg baax nañu leerale leen lu tax Abdou nekk daanaka caat ci suñu kër te ñu koy bàyyi muy génn di wax ci suñu tur ñun ñépp magam yi Abdou bi mu ganisee àdduna papam sëñ Cheikh dafa bind benn xasida ci moom jël photo bi mu nekkee liir boole ko ak xasida bi jël benn chaîne takk ko ci photo bi ak ci xasida bi wekk ko ci néegam ca chaîne boobu xasida bi ak photo bi wuñu fa bi muy wuy ji boromam yàlla azza wa jalla moo wax ci alquranul karim ne wa wasayna al insana bi walidayhi حملته أمه كرحا ووضعته كرحا سنو نياري واجو دي مصطفى سي تود بسو عشو دي بي باسي نيونيو جنلون سنين بابا سنين شايا لينيو بولي وانك موم دفا باري موي سنو واجور دي سنو وسيلة دي سنو متر ا di suñu xarit di suñu wéttal moo ñu gënaloon képp ku daan dox ci kaw suuf yaakaar nañu ne àdduna bi xam nañu lu doy ci moom en tant qu'homme public su dee wàllu vie privéem nag ñun ay doomam fas yéene nañ garder côté privé boobu wante dañu jàppe ni baax nañu wax leen kan mooy suñu waajur bu jigéen Soxna Aida tubaab dafay wax ni que derrière chaque grand homme se cache une femme Soxna Aida moo doon dëggal kàddu yooyu fa tabarakallahu mu nekkoon soxna su tabi doon jigéen bu mën góor ndax fitam ñeme dëgg sell te daan sellal ndax milieu médical bi mu liggéeyee ba bi muy retraité sell te daan sellal ndax nitu yàlla bi mu dëkkaloon mu sonnoon lool ci njabootam ci njabootu Serigne Cheikh ci ay mbokkam ak ci doomu aadama yi wante lépp lu mu daan def daf ko daan def ci discrétion bu ma sëkk moo tax ñu bare daanuñu dégg turam Soxna Aida moo doon colonne vertébrale bu kër Sëriñ Cheikh moom rekk moo téye woon kër Sëriñ Cheikh lu jege juróom-ñaar fukki at benn moromu jigéenam fekk ko ci woon moom rek moo doon soxna Serigne Cheikh bi daan taxaw temm ci wetam saa yu daan jànkonteel ay jafe-jafe yu tar lu ne daj na ko ci kër Serigne Babacar si Serigne Babacar si moom ñu tudd moo ko ci loxom yu sell ya toogal ko ci kaw lalam ñaanal ko te ñaan yooyu moo topp ba ni mu fiy jógee dem wuy ji boromam kooku mooy soxna Ayda mi Moustapha Sy ak ay nitam bàyyi ba mu jóge fi ñu sëgg ci deram di ko saaga Moustapha yàggoon na sax di wax lu bon ci Serigne Cheikh ak soxna Ayda wante daf ko daan def ci biir nekk loolu moo taxoon njabootu sëriñ Cheikh yépp yi xam ni kër gi tëddee bàyyi nañ ko yàgg dem ànd ak yeneen doomu sëriñ Cheikh yi am kilifa am pas-pas te ëpp ko àlluwa ñi des ak moom ñooy njabootu sëriñ Cheikh yi xamul kër gi ni mu tëddee wala nitu boppam yi mu formé di leen pousse contre suñu famille ñun ñi dëkkoon ak sëñ Cheikh xam nañu ne Moustapha bi muy attaqué Soxna Aïda Cheikh la doon attaqué indirectement problème am mooy ñemeegul attaqué sëñ Cheikh directement en public ndaxte dafa toog si banqaas bugg ko gor te xam ni su ko goree dina daanu banqaas boobu mooy sëriñ Cheikh xam na ni teraanga bu mu am sëriñ Cheikh moo tax mu am ko sëriñ Cheikh mooy fond de commerce ndax moom du kenn lu dul benn délinquant comme ni ko Abdou waxe woon dafay xeex ak wàll yi bu nekk ci biir suuf wante xamul ni que yàlla azza wa jalla du tey loxo nitam baax nañu leeralal leen li tax suñu diggante ak Moustapha yegg si fii ñun miinuñu ko woon avant 1993 turam rek lañu daan dégg bi mu defee déclaration wu cees bi si lañu seeti Serigne Cheikh ne ko suñu ko jàppalewul nguur gi nekkoon en place dinañ ñu ko sacrifier loolu moo taxoon daanaka njaboot yu góor yu soxna Ayda yépp dugg nañ kasu ndax Moustapha photo prison yaa ngi fi nekk ay bi événement yooyu weesoo bu ñu toog ak moom ab diir si dañu xam ni ko waruñu ko woon dugal ci suñu biir lu tax mooy sikk yi mu boole duñu bare dafa boole soxor nekk añaan yare diku ñaaw làmmiñ gàtt xel ñàkk kilifa ñàkk pas-pas ñàkk kersa ñàkk sutura wegul kenn mën sos ca bëggul kenn ci mbokkam yi du pàppam du yaayam du nijaayam yi du tàntam yi du magam ak rakkam yi mu bokkal ndey ak du rakkam yi mu bokkal baay du jabaram yi du sax ay doomam yi mu formé pour utiliser leen contre suñu famille ku ne ci ñoom mës na la attaqué lu physiquement wala mu teg lu ñaaw ci sa der ba pare sosal ka seede loolu moo tax ñun bàyyi woon nañ ko sax balaa kay Serigne Cheikh di ko bàyyi ci atum 2012 tegaatu ko bët ba bi mu fiy jógee ci weeru mars 2017 sikka yu ñu gisoon ci Moustapha ba bàyyi ko sikka yooyu la Serigne Cheikh gisoon ci moom ba bàyyi ko tam rax ci dolli Serigne Cheikh demoon na ba xam ni que Moustapha daf ko toogaanu pour mu jóge fi mu doon na ko daf ci daan dem ba di saali ci kanamam dafa am benn doomu sëriñ Cheikh bu waxoon lu kenn mënul dindi dafa newoon ni que Moustapha nekk ak moom ci ay moo gën nekk ak moom ci jàmm ndaxte soo nekkee ak moom ci ay dootoo ko gisati wante soo nekkee ak moom ci jàmm ci fitna ngay dëkk ndaxte xolam dafa yàqu yi tax Moustapha bëggul suñu waajur yi mooy que Serigne Cheikh moo tànnaloon boppam Soxna Aida dëkk ak moom rekk moom Moustapha daanul gis pàppam lu dul sur rendez te dafa daan nekk ci wàllu activité daayira Moustarchidine wala Moustarchidaat li ci ëpp su ko Serigne Cheikh daan recevoir daf ko daan recevoir ci kanamu Baye Omar Samb ndaxte dafa daan bañ mu sosal ko Serigne Cheikh moo ñu jàngaloon ne xol këru yàlla la azza wa jalla euh, soo bàyyee boromam ndëkki ko leneen du fa xaj loolu la mustafa deful xolam si tàngalay dëkk te saayu yu tàngee mu sippi ko kenn bi yoon nag daf ko sippi Soxna ñu bugga ko xamloo ne ku wekk sa yaay doo saaga yaay jàmbur Binu al-Adi yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ban rang la yaay am si dundu doomu aadama dafa tontu ne que inna laahu yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum ñaari yoon lu tudda yaay avant muy tudda baay gannaaw loolu li ñu denc sëñ Pape Malick Sy ak Soxna Aïda si wetu Serigne Cheikh dem na ba mënatu ko supporter Moustapha dafa amul jom su amoon jom du meliwu si li fi Serigne Cheikh bàyyi ndaxte pàppam meliwu ko ci daram avant mu fiy jóge Serigne Cheikh moo waxoon ni que sëñ Babacar si su fekkante ne woon ne melewuma ci li mu fi bàyyi si gannaawam duma ko toppatoo loolu mooy fulla li mu bugg a gëmloo nit ñi ne dafa nekkoon ci wetu pàppam di ko jàngal fa ilayka ci yoon bi bi ñu koy yóbbu pour denc ko ci wawan dara du si dëgg Mwen mwou dje kham si do mwou serin cher hi, neko pap pwem defi djogue. Lam lam le nyou dabe, binu yobou serin cher. Nyoun, ak se yon pap malik si, nyon djel serin cher, djel e kondak alou, yobou kebe tiwa anou, pou teril ko fon fon. Limu baga gem lou nitni, nekk dafa am cër bu tax muy toog ak yàlla azza wa loolu waxu dof la daf ko sos li muy wax ni que sëñ Babacar moo koy feeñu di wax ak moom mu mel ni que dafa am cër ci wàllu tarixa bi loolu waxu dof la daf ko sos ku mënul yilif kër naka ngay yilifee tarixa bëgg-bëggam nag mooy dafa bëggoon yilif kër Seydi Haj Malik Si mu jiitu ñépp topp ci gannaawam puisque xam na ne loolu mënul nekk mu ne bon cere ji duma ci lekk waaye dinaa si xëpp suuf ba kenn du ci lekk lu mu fas yéene def mooy yàq liggéey bi Serigne Cheikh ak Serigne Pape def pour que njabootu Sey Hadj Malick si ànd si jàmm wante mënuñu wax ba pare te tudduñu ñaar ñii jëkkee ñooy doomam yi mu soppali ay délinquant comme moom daf leen sañ loolu kenn si ñun doomu sëriñ Cheikh yi sañul kenn ci ñoom moo amoon ndofu ànd ak yeneen fukki nit ak ñett ñu armé dugg ci ñeenti 4 x benn bi sax dafa amoon immatriculation administration dem ci kër Serigne Cheikh bi nekk ci route de Ouakam pour enlever fa benn employé bu tudd Omar li may chance Omar mooy euh, li mu gaawantu wooñu su ko deful woon mënoon nañu ko yóbbu ci kër Moustapha te foofu kenn du xam lu fay xew laaj leen ko mboo si doomam bi yóbbu Omar ba ci kanamu pàppam ne ko ak reewande bu ma sëkk kii su ma waxoon ma fas sa bàkkan dinaa ko def ku gis ñoom ni ñu defoon Pape xalifa sàmba doomu Omar sàmba bi garde rawdu Serigne Cheikh di dóor boppam ci dër bi ba yaakaar ne que dafa dee ñu bugg ko yóbbu ci saaku te suñu ko yóbbu woon kenn dootul gis Pape xalifa te kenn narul woon xam fan lañ ko suul ndaxte loolu mooy seen méthode yu ñuy jëfandikoo nañu laaj délégué jaxate bi jiite woon expédition bi attaqué woon Pape Khalifa te doon këdd buntu rawdu ba fan la mujjee ndof ak violence bi ci Moustapha yépp mi ngi ci xale yooyu doomam yi sañ dem kër sëriñ Cheikh di fa def ñaawteef yooyu nag nañu xam ni ko ñun ñoo leen daan sang di leen solal seen moroom yi ñaar mooy seen itti fi ñu tollu benn bi mooy seen àlluwa ñaareel bi mooy seen liggéey lu tax ndaxte ñoom ñaanuñu di dundee ci cotisation comme ñoom ak Moustapha ñaan nañu yàlla azza wa di dundee ci seen ñaq ba duñu tàllal seen loxo benn njaboot pour mu leen di fajal seen soxla Moustapha daf leen coupé ak réalité àdduna bi yaral leen boppam sans seen yaay ñaaw teef bu ne xew na ci digganteem ak seen yaay mu def leen lavage de cerveau gëmloo leen ne ko li mu am yonente yi sax amuñu ko ndax moom dafay toog ak yàlla azza wa jalla te yàlla azza wa jalla moo wax yonente yàlla Muusa alayhi salaam ne ko lan tarani jël na leen soppali leen ay psychopathe ñu arrogant manipulateur insensible dominant impulsif te amuñu benn remords ak benn empathie lu bon lu ne sañloo na leen ko seen papa mooy posonu kër Serigne Cheikh dundul te nanguwul kenn dunda lu mu leen jaral ñoom ak seen papa jaral nañu lu ko ëpp junni yoon waaye te duñ leen bàyyi ñëw di posone suñu dund Sëriñ Cheikh du yar ragal te moo ñu yar ni mu yare góor la yare jigéen te si wàllu ñaawteef fi ñu mën àgg ñun jigéen ñi góor ñi mënuñu fa àgg te preuve yi ñu sëriñ Cheikh bàyyil yépp ñi ngi fi li Abdou doon wax lañuy def ku si defati acte de délinquance jëmale ko si ñun dinañu la fetal ndax ñun jàpp nañu ne Bok kounyo ak nyonm dara. Kou hamselin chen khamne, setem moun ke genel doman. Legi leni soge realize, neko li moun khamon, mwotak danou len jis. Yon konneni, nyonm sinyo magye, douni don mak yu bakh. li si des mooy wàllu daayira mustarchidin wala mustarchidaat ñu si mel ni Serigne Ndiaye peintre ak Moussa Gueye Serigne Cheikh ak Soxna Aida defal nañ leen lu ne ci àdduna suñu baaxoon du soxlu ñun ñuy génn bon ñoom ñooy jubbanti Moustapha fay yu ñu naar ba xoromam ñu jàppee nañu ne ñoom duñu njabootu sëñ Cheikh nitu Moustapha lañu ndaxte amul benn njabootu sëñ Cheikh bu sañ di génn di wax safaan si ñi sëñ Cheikh gënoon bugg ci àdduna ñu di soxna ay daak njabootam ak sëñ Pape Malick wala ngay toog ci ndaje buñ leen di waxee safaan soo leen seetloo amul benn doomu Serigne Cheikh bu des ci daayira bi ndax ñoom seen mbon moo tax tas nañu kër Serigne Cheikh léegi nag fas yéene nu ñu jàppale Moustapha ak ay doomam pour ñu tas kër Seydi Hadj Malick Sy lu mu si mën ci doon ñoom ñoo gën Moustapha ndaxte ñoo koy saagal mbokkam yi wante kenn si ñoom mësul taxaw saaga mbokk boppam ñun nag seetuñu ko war a topp Moustapha ak ku ko warul topp suñu wareef la woon ñu génn wax ak njabootu Serigne Cheikh yi ne leen suñu tënkoo si li Serigne Cheikh wax jàpp nañu ne ku ko topp ñàkk nga sa kurus loolu rekk lañu leen bëggoon wax وبنين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته